ba pare nga teg ci ne dégg nga ñëpp a ngi dog xaalitu nga yi di dem ba Makka te demuñ lu muy ñu foon sama xetu ban loolu nga ñuy wax yépp dañoo bëgg nga leeral mu ne walim laa mu ana lu tax ma wax loolu waa ay nii te jëmm sama ay ni muhammadan mooy jëmmi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon ma wax leen li xam jëmm ja ñuy wuti ak ka ñuy xeeñtu ji ak ka ñuy nangam mooy muhammad taman maa jëmm man maay muhammad sallallahu alayhi wa sallam saraasiruhu fi haykali wa ruwaay saraasiruhu fi haykali wa ruwaay saraasi dox na mbootam mbootam sirruhu mbootam fi haykali ci sama ci sama jëmm ji ma taxaw xam ne bu mën a tër rek ñëpp di rëj rëji mbootam yëpp a ci man man alaaji Ibrahima Niass ñu ne ko mooy li ngay wax nag mu ne li may wax man waxewuma ko ngir caaxaan waxewuma ko itam ngir puukare waxewuma ngir feeñu وما قلته شطحا waaw wa da'wa aridatan ahabtu jami' al-faa'izina wa laa'ib man waxewuma ko ngir caan waxewu ngir puukare waxewuma ko ngir dara dama ne may naa wahabtu jami' al-faa'izina wa laa'ib dama ne bu fekkee ne sax da ngeen a foog ne dama ko waxee ngir puukare wala ngir kii ngir ngir di baddaañu ak di waneewu mm. bon maa ngi leen di wax ne mbooleem ku kowe ci kaw Muhammad ak ci maqaama Muhammad mm. jox naa la ak wilaaya jox na man ma leen jox wilaaya képp ko xam wilaaya rek man El Hadj Ibrahima Niass man maa ko man maa la jox. waaw. جميع الفائزين والآي وهبت جميع الفائزين وما قلته شطحا ودعوى عريضة وهبت جميع الفائزين والآي ngir di xoote pour ñëpp di ma xuy si ndax yéen yéen a gis kuy xoote ak ku ñuy xuy si man waxuma ko ngir loolu waaye nag li ma leen di wax rek képp ku kawe rek ci kawe yàlla gi rek mën naa la ko jox. <laughs> waaye nag maa ngi leen di. faydu xam nga du nit faydu du nit Cheikh dafa wax ne jamono dana ñëw affaire yi dana gën a yaatu ba mel ni ab faydu rek comme ndox muy walangaan boo xam ne dana tooyal ñëpp. loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee faydu mooy intisharu tariqa waaw mais waxul ne comme ñoom li ñuy wax ne dafa am benn waay bu war a ñëw ci mujjantalu jamono te moom moom la ñuy wax saaxibul fayda su ko defee daanaka xawma lan ak lan affaire yooyu loolu laa gëmul man et puis tamit loolu nekkul ci waxu cheikh ji xaate la kay maanaam buñ bëggee maanaam jëmmi ñuy wax ne faydu bi wala faydu bi nangam faydu borom faydu bi yooyu man ci naxaate laa ko boole ndax man fay ma ma wala boog man li ma xam amul faydu ci tariqa bu ñuy wax ne diw moom moo ko yor wala faydu bi nangam wala neng déedéet <laughs> faydu du loolu sax bokkul ak lii sax ak ñoom li ñuy woote ak loolu dafa bokku dara